incha allah gannaaw ba ñu defee lépp euh, ci assemblée mu des tey xëy na ñu sañ ci commission yaak ñu koy jiite ak ñu cay ñi cay nekk euh, démb Yewwi Askan Wi seen député def nañ conférence de presse ne ñoom kii ñu fal ci assemblée nationale di Amadou nekkee ñoom ci assemblée ba président am ci groupe parlementaire ne ñoom kii nekk ca bopp président bu la neexee nga wax ko nag waaye mooy nekk sa président moom ala kuli al moom président assemblée nationale moom buñ ko xasee ba fal mënoo ci dara juróomi at yi moom yi ci tegu mooy nekk sa président mhm. nekk naan du suma président wala euh, euh, leneen lay def loolu en fait li ñu li ñu li ñuy gis ci assemblée nationale bu bees bi dafa caaxaan caaxaan moo ci gën a bëri daal caaxaan moo ci gën a bëri parce que euh, il faut que ñu respecter Sénégalais yi parce que présidence su assemblée nationale que nga d'accord ci wala nga ñàkk cee d'accord kooku ci élection bi daal nga ko nga ko mun a gérer mais bu ñu ko xasee ba fal mooy sa président mooy comme président Sénégal rek bu ñu ko xasee ba fal mooy sa président mënoo ci dara. Mhm. bala maa jox Seydou Nourou euh, Théodore Monteil bu dee ñoom taxawee nañ nii ndax gis nañ ba ñuy fal président ba nu yëf yi bloqué woon ak coow la ak fitna ya est-ce que liggéey bi du du jafe ci assemblée nationale ci président bi ci boppam ak ci doxinu assemblée ci boppam bu fekkente ni nii lay demee réunion bureau assemblée bi yeeg euh, ñoom seen est-ce que bu ñu respecté sénégalais yi du am blocage parce que assemblée nationale ay textes ñoo ko lal dafa am intérieur moom moo lal euh, assemblée nationale donc euh, booy dem assemblée nationale da nga koy jaarale ci yoon da nga koy jaarale ci euh, man dama bëgg ñu tabb ma député donc yoon nga ko jaarale yoon boobu nga ko jaarale yoon boobu moom moo yore règlement intérieur u assemblée nationale boo respecté sénégalais yi da ngay respecté règlement intérieur assemblée nationale ba ba nga koy soppi nag bu fekkee ne règlement intérieur assemblée nationale euh, da nga yaakaar ne baaxul wala ni muy doxee du ni anam bi gën ci Sénégal nga xeex pour ñu soppi ko mais tant que règlement intérieur bi mu ngi taxaw moom nga war a respecté parce que boo gisee ay député ñuy jóg di yéeg ci ay table wala ay député yi jóg di jël ay urne di ko yóbbu loolu dafa ñaaw ci Sénégal loolu waruñ ko waruñ ko nangu parce que mënuloo gàll drapo Sénégal ci sa ci sa ci sa ndodd ba pare di def lu la neex député représentant la dañ la fal pour nga dem toogal askan wi donc euh, askan wi boo leen toogalee dafa am noo war a toogee toogin woowu mu rafet mu ñaaw warul nekk euh, loo xam ne lu la neex la yow. Mm-hmm. Théodore euh, Monté maa ngi lay nuyu. waaw waaw ah, ah, wax nga léegi loo xam ne sax ci la naroon euh, laaj mooy comportement député yi foofu ci assemblée nationale gis nañ li fa xew muy lu doy waar. Euh, te loolee ku moyul dafa nar a euh, wëy ndax gis nañ démb euh, ne ñoom duñu mës a nangu ne kooku mooy président ngir ñoom ñooñu di opposition bi ndax tey lii bu naree wéy amuñu tey loo xam ne may na leen foofe ca assemblée nationale ñu dem sax ba exclure maanaam génne député foofe ca assemblée nationale bu naree wéy ci yenn ci yenn comportement yi. règlement intérieur permettre ñu exclure leen règlement intérieur am na ay daan yu mun a daan député mais daan yooyu vraiment ay daan yu néew la munuñ mun mun munuñ leen exclure mais bon taxaw ci euh, conférence de presse ne kii du suma président bu leen neexee ñu def ko xam nga Sénégal li may wax la dañu toll foo xam ne populisme bi dafa commencé di di ñu di ñu daani Euh, xale yi jàngatuñu mag ñi yërëmuñ euh, ndaw ñi donc ñu ngi ñu ngi nekk ci situation yoo xam ne dañuy dañuy gis nga Mussolini ak Hitler bi ñuy jël Italie ak Allemagne ñu ñu bëggoon lañ Allemagne yi dañ bëggoon Hitler italien yi dañ bëggoon Mussolini parce que dañ leen doon wax li ñu bëgg a dégg Sénégal loolu lañ fi am actuellement dañu am ay ay ay ay yoo xam ne dañuy mm. wax xale yi li ñu bëgg a dégg te xale doo ko wax li moo bëgg a dégg xale da nga koy yar da nga koy wax liy yoon te actuellement au Sénégal dañu am ay hommes politiques yoo xam ne dañu verser tellement dans le populisme mm. dañuy wax xale yi tellement li ñu bëgg a dégg mais mais bu ñu bu ñëwaatee ci sànq daan yi nga wax maanaam député boo amee yenn yenn comportement yi dañ koy daan mais yenn xeetu daan lay nekk parce que tamit euh, dem nañ sax ba ne euh, ba am ñu ne euh, waruñoo militariser assemblée nationale waaye li ñu gis nii moom demul kër de parce que ku fa dem ci ñaareelu waxtaani foofee jot nañu dégg sax ay député taxaw ne dañ leen dem ba di leen dóor ci assemblée bi. non noo def député dara loo xam ne règlement intérieur assemblée nationale tegu ko. règlement intérieur assemblée nationale li mu teg daan bi mu bi gën a garaaw bu mu daan député mooy euh, ñu ñu ñu ñu teggi kàddoom c'est-à-dire ñu ñu tere ko mu wax pendant quelques heures donc ñun bi ñuy bi ñuy def réforme règlement intérieur bi en deux mille dix neuf bi ñuy bi ñu nekkoon euh, député dañu proposé woon que député boo xam ne dafa saaga. wala mu wax naka sudul noonu ñu teggi xaalis ci salaire xam nga xam nga loolu loolu mooy wax ji hmm. nit ñi dañuy wax euh, daan daan daan mais Sénégal amul benn daan bu gën a diis nga nga nga làmb poosu waa ji donc ñun dañ waxoon nañ teggi xaalis ci ci salaire daanaka ñu dindi cinquante pour cent ci salaire bu fekkee dafa def naka sudul noonu def daal di ko def un mois de suspension de parole nga xam ne pendant un mois du mun a jël parole assemblée nationale mais biñ ko biñ ko tegee gars yi d'accord uñu woon ils n'ont pas voulu que mu ñëw en plénière même dañ ko discuter ci ci ci ci ci forum bi mais plénière d'accord uñu woon mu mu mu ñëw mais je pense que su fekkee ne vraiment dañ bëgg a dañ bëgg a euh, liggéeyal Sénégal il faut que ñu xoolaat taxawaayu député yi parce que député du du sur homme député dafa nekk ndaw dafa nekk koo xam dañ ko yónni donc ki ñu yónni dafa war a taxawal ndaw yi dafa war a taxawal sénégal yi hmm. donc il faut que ñu teg ay règles yu yu même même affaire immunité bi il faut que ñu xoolaat ko yooyu yëpp dañ ko war a jàngaat pour que euh, ñu ñu ñu am ay députés yoo xam ne ñu représenté Sénégalais yi réellement. Mm. Euh, président de République euh, bi mu jëlee kàddu keroog aljuma wax na ci li xewoon assemblée nationale am waa opposition bi ne président yoonam newu ci warul wax ci mbiru assemblée. ndax euh, li ñuy wax séparation des pouvoirs est-ce que ànd nga ci loola. non oh, président warul wax ci affaire assemblée. parce que man bu ma déggee sax ñu naan président dafa convoqué ay député dama naan waaw lan mooy député président président amul lu muy wax ci assemblée amul lu muy wax ci assemblée. mais ñàkkul mais ñàkkul ne aussi war na woo ay député papa ay député maanaam ñi nga xam ne ñoom la nekkal waxtaan ak ñoom pour peut-être bonne conduite. en en tant que chef de parti. Hmm. mun na waxtaan ak ay député de son parti. Hmm. wala ay député de sa coalition. Hmm. mais convoqué leen palais de la république pour de leen jox ay dogal naan leen kii mooy nekk président assemblée nationale kii mooy nekk président commission bi loolu du yoon il faut que non faut que Sénégal ñu ñu dellu dans dans les fondamentaux on ne peut pas avoir un président de la république buy dicter à à des naka lañ war a taxawee biir assemblée nationale wala kii ngeen war a fal président assemblée nationale et cetera et cetera c'est vrai boo nekkee président de la république euh, haute majorité parlementaire c'est pour mu aider la ci nga gouverner loolu dëgg la ñëpp a koy ut mais di convoquer ay député naan leen nii ak nii ak nii ngeen war a taxawee député constitution Sénégal ci boppam moo bind que ne le mandat du député c'est un mandat non impératif kenn mënul wax député fan lay voté ak fan la war a taxawee que nga nekk ci kujje gi wala nga nekk ci gouvernement bi waruloo euh, en tout cas di bàkku naan man kii la faral député ndaw la askan wi la war a faral warul faral ak keneen Sénégal moo la fal Sénégal nga war a taxawal mm-hmm. Euh, député yi askan wi démb euh, wax nañ ay mébét yu ñu bëgg bu assemblée tàmbalee dox euh, lu ci mel ni criminalisation góor jigéen maanaam ñu jàppee mbiru góor jigéen crime ci Sénégal dana gaaw a sotteem ci sa gis-gis ak ndax ànd nga ceem àndoo ci. bon ce que ànd ci ànduma ci laay njëkk a ton tontu. criminalisation moom lay wax toujours il faut que nit ñi def attention. nit ñi dañuy wax criminalisation pour euh, yokk daan criminalisation du yokk daan criminalisation démarche la dafa am délit am crime bu ci nekk dafa am nu ko yoon di àtte est-ce que euh, c'est parce que dañu criminaliser quel chose que daan bi dafay gën a diis wala dafay gën a oyof c'est pas forcément vrai xam nga criminaliser nañ fi viol lan la indi longueur ci euh, ci dem ci ci ci procédure yi yàgg criminaliser homosexualité est-ce que loolu mooy fecc homosexualité est-ce que loolu mooy tax nit dootul nekk homosexuel criminaliser viol est-ce que loolu mooy tax nit dootul violer loolu lañ war a xool bu baax lan la ñuy lan lañ bëgg a régler est-ce que dañ bëgg a régler un phénomène de société wala est-ce que juste dañ bëgg a punir bu fekkee da nga bëgg a régler un vraiment un problème de société da ngay dem ca njàng ma man toujours dama ko daan wax wax naa ko fi benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ci njàng mi lañ war a dem dañ war a dellu ci suñ fondamentaux yi xool lan la ñuy jàngal suñu doom yi xool lan la ñuy euh, lan mooy suñu suñ suñu suñu suñu culture mm-hmm. criminaliser homosexualité du faj dara du tere nit ñi ne nekk homosexuel mënu ko tere. kon da nga jàpp ni foog ñu dellu euh, ca fa nga xam ne euh, fa la ñu war a ne maanaam euh, éducation beeg culture beeg gën a ñaax xale yi surtout. absolument parce que États-Unis boo demee États-Unis États-Unis c'est le pays où on tue les gens qui tuent hmm. mais chaque minute nit rey rey nit États-Unis chaque chaque minute ñu rey nit. Il n'y a pas il n'y a une minute où il n'y a pas un crime aux États-Unis waaye mais tam ñàkkul na aussi euh, bu ñu criminaliser wax nga ko léegi ne nga du ñàkkul ne du faj dara waaye tamit euh, bu dee nee nga réellement nañu dellu ci njàng mi euh, ñu bañ a teg dara ngir daal di dissuader nit ñi ndax loolu tamit doxoo complexe non il faut que ñu moom lay en fait c'est plusieurs strates da ngay da ngay accompagner après nga doog a euh, punir xam nga nit bu xamul noo ko tere mm-hmm. nit noo ko tere li mu xamul donc da nga koy d'abord éduquer da nga koy jàngal bu fekkee dañ dellu ci suñu fondamentaux yi ñu jàngal nit ñi wax leen nii ak nii ak nii lañ war a doxee homosexualité du du lu bees Sénégal les gens disent que waaw euh, dañ ko dem jéngaani non c'est faux il faut que ñu d'accord que ne l'homosexualité c'est quelque chose qui est aussi vieux que l'humanité dañ daan am ay góor jigéen ci xew yi mais nekku ñoon ñoo xam ne dañuy dañuy tëdd ak góor wala dañuy tëdd ak jigéen dañu nekk jigéen tëdd ak jigéen wala dañuy nekk góor tëdd ak góor dañ daan am góor jigéen ci xew yi dañ leen daan gis. mais si comportement yi dina xàmmee. juste ci comportement yi hmm. xam nga nekk nekk ki di xaritu jigéen ñi et cetera et cetera. c'est un phénomène social. il faut que ñu jàngaat ko. xool lan moo ko ëmb. ñu il faut pas que ñu juste parce que dañuy dañ dañ bëgg a euh, neexal ay nit. ñu ñu def loo xam ne. dañ foog ne que mm, moom mooy régler problème yi. Hmm. non non non ça ne réglera aucun problème. Théodore Monteil ci élection euh, falum député yi législative yi aar Sénégal nga bokkoon yaa ngi ñoom Thierno Alassane Sall euh, Abdourahmane Diouf Thierno Bocoum Mariam Soda Ndiaye ak ñeneen ak euh, ñeneen ancien député Cheikh Omar Sy ci la bokk itam gis nañ résultat yi ni mu demee benn député ngeen am mooy seen tête de liste Thierno Alassane Sall aar Sénégal foofu ngeen koy yemale wala. Euh, am ngeen lu ngeen nas ëllëg. bon liñ bëgg liñ bëggoon mooy mu bañ faa en tout cas c'est sur ça qu'on travaille ñu ngi ciy liggéey ñu ngi liggéey pour euh, continuer coalition bi xamuñ lan lay jur xamaguñ ko en tout cas ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey mais li ñu gënaloon mooy ñu continuer liggéey bi. Mhm. Euh, parce que. am nañ force de proposition yi ñu bëgg a defal. Euh, lu tax nit ñi voté luñ leen euh, lu bari ci élection yi weesu. bon si suma jàngat mooy que ne sénégalais yi dégguñu dégguñu ñu dégguñu ñu parce que c'est pas parce que sénégalais yi dégluwuñu mais parce que ñun vocabulaire bi ñu utiliser ak euh, méthode bi ñu utiliser sénégalais yi comprendre uñ ko wala en tout cas. du du du du luñ doon xaar. parti bi aussi euh, teelul taxaw ne parti bi ndax lu tam euh, bokk ci un mois et demi un mois et mm. demi deux mois maximum. Mm. deux mois maximum mais bu fekkoon ne euh, jàngat nañ bu baax mënoon nañu am un peu plus mais moi j'ai une vue très critique hein de notre de notre façon de de faire je pense que dafa des li ñu li ñu li xam nga nit booy wax ak moom dangay ngay utiliser euh, langage bi nga xam ne moom moo approprié moom moo xam ne moom lay dégg je pense que langage boobu ñun jotuñ ko adapté comme il le faut. kon da ngeen ci lajj ci wàllu communication bi. dañ ci dañ dañu lajj ci wàllu. Ah, communication kon reconnaître kon. Mhm. waaw dañu lajj ci wàllu communication loolu moo tax. parce que boo amee un programme aussi important qu'un contrat de législature boo xam ne. Euh, en quatorze points yaa ngi def ay réformes yu am solo te nit ñi euh, naw ko ba pare dégluwuñ ko ça veut dire que. y' a problème. Mhm. voilà y' a te jërëjëf Théodore Monteil opposant bokkoon ci Aar Sénégal ci élection yi ñu weesu ñu ngi lay euh, ñaanal yéen kenn du jàmm. Euh, fàttali ni itam ancien député nga jërëjëf Seydou jërëjëf Soxna Naata. merci beaucoup euh, Babacar Fall Seydou Nourou Ba ak équipe bu RFM matin yëpp di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm ñu dellu si ci info matin ci TFM ci ñaareelu pàcc bi ci kanam incha allah Abdoulaye Cissé dina fi teew ci jàngat bi mu fas yéene waxtaan euh, ci communication ci biir palais présidentiel ak instabilité bañ fa nemmeeku dina ci defab jàngat dinañ dalal itam Babacar bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ci kanam lay doon incha allah léegi léegi dañuy soobu ci xibaar yi ñu andi ca